ñi di ci di ci bàyyi xel juróomi at ñaari at ñett ñoom bu ñu demee réew mi mën nañ koo defar ci ay fan yu néew laa la wax. ñan ñoom ñi fi président Macky Sall tegoon. ñoom ñëpp lañ ci war a jële mhm. système bi dafa yaatu tey jii ma lay wax benn affaire. bu fekkee war ngaa jëm si sans limite. Mhm. Mhm. ci suuf ba ci kaw exemple. ñi yow mi ñëw ak sa ñaar sa ñett képp ñooy bokk ci ak ñi ci des ñëpp boo daj koo dajal mi ngi lay fakkastal ak di la gàllankoor. est di nga yëg. yow yow mi ci suuf kay yow nag mi mi kilifa gi mën ngaa fexe ba yéeg. Mhm. waaye ñi ànd ak yow lépp lu leen romb lu ci nekk rek dara lu ci baax ndax duñ liggéey état bi noonu la mel fi mu ne. Mhm. Sonko samp na jomaay indi nañ seeni mbir waaye li ci suuf ñi nga xam ne ñoo war a doxal dëgg-dëgg gaañee fa nekk te ñooy fakkasal affaire bi. Mhm. loolu nag buñ koy def nga naan changement dina am du am. Mm. mais nañ fi jógee ba pare man fi ne loolu moom laay ñaan te loolu moo war a am ñoom nag bu ñu demee. Mm. damaa gëm na ay patriote la ñu teg ci bërëb bi te ab patriote mënul def lu dul doxal réew mi. Mhm. moo tax ensemble bi loolu nga wax léegi daf ci am solo. il faut ñu tas ko am na poste yoo xam ne xam nañ la leen fa teg dëgg la président bi mais nañ def décret jël député yoo xam ne bu dee sans nangam yépp sax. na dem ci waaw pouvoir bi. mais ndax di loolu yomb tamit. dana non non benn question la ñoo bokk question. ndax élection tey bu amoon. leer na leen ni. Mhm. ñu nekk pouvoir. Mhm. ñooy gañ le député à loolu mooy li wér. Mhm. bu amee ñun ñooy gañ assemblée bi. am ngeen ci yaakaar. dinañ ci yàgg mu ngi ci kanam. xam nga bee paase dafa am ñu ngeen àndaloon nag. dafa am ci élection maire yi. dañuy wax ne yéen a fayal yi waaye da ngeen àndoon. ku ci mel ni eh, eh, borom Dakar mi ngi fii. Eh, ñooñu naan borom Dakar ak borom Géejawaay waaye Pikine. waaw képp ku ci bëgg benn maire wala ñaar. da ngay ñëw ci borom dëkk bi. mooy président est-ce dana yomb ndax li jotoon a xew yaakaar nga ñëwaat bi kër gi dana neexaat. assemblée bu yiñ fa masa fal ci senegal yëpp bi yee ciy gën a yomb falin wi. bii ma wàññil nit ñi seen kii ñu ñu xam ne te looloo am bii di ñëw te mi ngi ci kanam loolu yegg ñu ci ay ah, wax nga ne ko nga ne ko ak borom pikin bo <laughs> ah de moom ko fa nekk sax moom xayit la soo waay la moom ma ngay liggéey nag <laughs> maanaam nañ ko indee. ci waxin la daal da ko rimee moom sax ah, <laughs> moom moom suñu càmmiñ mm, ma ngay doxal ñëpp sax say xarit la waaw samay xarit ñëpp sax nag surtout loolu mm-hmm. waaw ñu foofu moom mais waa damay gis léeg-léeg ku ñuy topp xam nga topp nit naan ko yaay borom ndakaaru yomb na waaye yow boo demee ba sa néeg xam nga ne doo borom ndakaaru ah, maa ko wax gars ko ko fal ñoo ko ko jox ku ko fal maire yi gis yëpp président Ousmane Sonko moo leen fal ñoom nanguwuñ ko de ñoom waa xam nga nag léeg-léeg dañuy dañuy bañ la gis nga nit mhm. euh, nangul sa moroom li ko yàlla may mhm. loolu loolu loolu dafay yokk sa cër sax gis nga ba jamono gis nga gis nga Sonko moo tax Sonko dafa baax am na ci ñoo xam ne fi mu ne nii e, bi ñu xamee ne seeni mbir a ngi yàqu jooy nañ ñii woo nañ ko ñii tafu nañ ko mm-hmm. am na ci ñoo xam ne daanaka raxasal nañ ko ay ndap ma wax la ko tey waaw waaw maa la ko wax mm, ay kilifa ay kilifa yoo xam tey tey jii ñi ngi ñu naan leen ñooy borom nàngam ñooy mo ma dàllam fomp nañ maa la ko wax moo tax tey fi mu ne lu ci bare bàyyil bañ tegaat affaire bi dinaa ñëwaat fii. yàlla seere na ne. sama xel ñaaw na de. sa xel ñaaw na dana ñaaw ndax sa. <laughs> ki loolu <laughs> kon kon loolu lépp bu amee tey nga ñàkk mm-hmm. ngor delloo woon naar bi xoromam. Mm-hmm. moo tax Sonko yàlla yàlla yàlla dimbali na ko. puisque rayoon nañ ko ba fees ko ba suul ko tëral ko maasale ko dem. moo ko njabootam yépp moo tax nit ñi ñépp a ngi fëgg seen dënn waaye war nañoo delloo njukkal président Ousmane Sonko. waaw moo sauvé réew mi. Ah, ñii di wax nii ñi ko jege. am na ci ñoo xam ne bi Sonko nekkee ci bitti man maa ngi woon ci yëf yi di xool ñépp. Mhm. sax ñi muñ ko woon a wax. dañoo dawoon ba ci ñu ñépp maa la wax lii. di ci dégg sax ay version yu naan am na ñu pare woon sax pour dem ci beneen camp bi ndax loolu amoon na. ba pare am ñu dem ci beneen camp bi jël xaalis. Ah. Hmm. kon buñ loolu du ay rumeur rek. bon euh, Pa Ousmane. bokk ak moo sauvé réew mi. moo dem ba xam ne li ma doon liggéey lépp yàlla teg na ko ci sama loxo danaa ko jariñoo nag ni ma koy jariñoo mooy jariñ réew mi moo tax mu làqoon Basiiru mii nga xam ne. kenn foogu ko woon moo tax ko war na maa fay. yow waaw dëgg ci naka. bi may tudd jomaay waa parti bi ñu ci bari dañ ma doon saaga. Mhm, mhm, mhm. na leen mooy borom basira bi te na ko. booba booba jomaay sax xam mi ngi naan waaye maaraan nag moom xanaa moom sax bëggut dégg li may <laughs> boobu yow yaa ngi doon gis xel ne. Ah, eh, bi peut waaw. waaye léeg-léeg dangay ngay làq mbir Sonko la kenn xamut lu mu doon. ñu ko koy jiiñ de. te non moom la bi ma ko waxee ñu bari dañ ma kii moo tax ñu ci bari ñu ngi ciy profité di kii waaye am na loo xam ne la ca biir de waaw. moo tax euh, Sonko man lenn rek laa koy ñaanal gudd fan. dañoo nekk ci télé nag bëgguma wax lépp. Mhm. waaye bu fekkente ne yàgg na tuuti ba doxal ay Sonko bu doon ab tubaab la. Mm. nu muy def kon kon opposition bii nga gis ñoom ñëpp ñu ngay xëy di bind ay kii pour gis ko. parce que ku mel nii ku ko am ci réew mi mu wóor na leen daf lay jariñ mu wóor na leen ne soo fee Macky Sall daf fee naroon a toog cent ans ci ñi xam ñëpp nag waaw. parewul woon pour dem. Hmm. moo tax bu ñu naan procès amul. <laughs> daf may jaaxal Pa Ousmane. xam nga procès bi fu mu tàmbalee. Mhm. procès bi lii procès bi dëgg-dëgg mooy jële fi Macky. bi Macky Macky Macky bi mu demee rek ci la projet bi tàmbalee. ndax fi na Macky ñii di wax nii gis naa léegi ñuy opposé wu. ñëpp dañ daan dañ dañ daan làqatu. ñii dañ daan yooru di gis Macky ci suuf. ñii dañ daan ñëw mel ni ku ànd ak Sonko ba noppi moo tax Sonko moo am bopp am na bis doon na leen wax ay wax na leen damay wax ak nit sax mu xam ne ma xam ne day enregistré. waaw waaye la ma bëgg mu dem rek ay dem. na koy wax la mu bëgg a dégg. loolu boobu xam na gaañam ah. waaye sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi. am na waaye li ci Jeune Afrique xëyee nag. mu ne. Jeune Afrique mu fàttaliwaat li tax. Mhm. Ousmane Sonko Bassirou Diomaye génn prison. waaw. waaw mooy yi ñu fi daan wax rek. Ah, ñii tuddee ko protocole Cap Manuel ñee naan bàyyi soo yi ñee naan ay ñëwaat na. Euh. tudd ci daal. ay kàngam yoo xam te ñoo ci dox. Euh. Ousmane Yara ñoom Abbas Fall. waaw ah même soxna Ousmane Sonko. non non non non c'est c'est pas Ousmane. Ah, waaw. ne am na lu ci dox dëggantaan lu ñu waxu réew mi man. man yëf yi ki ko dox exemple laa lay jox tuuti lu ndaw rek euh, baa xam nga ne jigéen jigéen jooj de bu ma ko waxoon te fi ne ñu bari fi ne liñ ci wax amu ci hmm. yii fii jaar yëpp ci ay version Atépa waaw bi mag yi bëggee lii hmm. jigéen ji mu woo jigéen ji woo Atépa barki démb la jóge sama kër. ku waaw. xees la ah. bu mag yi nga xam ne doyal na sëkk moom pour pare pour lan ne kut koo kut dafa bëgg a gis président Ousmane Sonko. ñu ah, waxtaan réew mi jàmm am yi moo demandé loolu nañ ko xam. Ah. Sonko demandé wul gis kenn Sonko.